ah man daal euh, euh, dinaa dinaa préciser par rapport à Assane tout à l'heure mm -hmm. que je fais partie de ñi gëm dialogue mm -hmm. je l'ai dit et redit mhm. j'ai dit trois choses Ousmane Sonko warul def désobéissance civile Ousmane Sonko dafa war dem procès Ousmane Sonko dafa war dem dialogue c'est trois choses que j'ai dites lu ma gëm la par contre je comprends Ousmane Sonko qui est dans une logique contraire au vu tout ce qui se dafa am benn persécution boo xam ni léegi-léeg boo ko baa ko tegee nit quelle que soit sa réaction c'est une conséquence vis-à-vis de ce qui a été fait mm-hmm. am na kilifa bi lu mu wax léegi et je pense que c'est une solution tellement simple loolu nag fa fa sore laa jóge dafa ne li diis teggi ko li diis baa ko teggee rek mu yomb xam nga fekk nit biir këram gàddu dix personnes ñu fekk jaboot bu tuuti nga ñëw fël bunt bi dugg ana diw songu leen jaxase kër gi loolu persécution la te pourtant diw mën nga ko yónnee convocation woo ko mu ñëw c'est le style violence le style qui violent foofu te li ñuy wax ni quand les gens disent xale yi dañu violent xale yi subissent des affres extraordinaires sur le plan socio-économique non c'est vrai souffrance bu incroyable lan moo xew quand on a vu la les manifs mais moi j'ai souffert ci ci période boobu pourquoi xam nga tax dama ne ay eh waay dégâts collatéraux yi dafa dafa ëpp dafa jéggi dayoo mm-hmm. ëpp na ëpp na ëpp na yoonu xeex bi te te te dégâts yi bu ëppee yoonu xeex bi dafay nasaxal xeex mm-hmm. bu dee xeexu principe moo di ne bu ñu demee ba ba li yàqu ëpp trop la tax nuy xeex kon day nasaxal mm-hmm. mais quand bien même quand bien même malheureusement on peut ne pas être d'accord mais se rendre compte que on aurait dû faire de sorte que cette situation ne se produise pas nga nga xool ne que ñi nga xam ni yàq nañu ñan la ay xale yoo xam dañ ne ñoom ñii dañoo ñëw toj butigu euh, jaaykatu portable toj butigu kuy kuy jaay or toj butigu lekk jël lekk dem ñoo ñan la c'est des gens qui la le martyre sur le plan de la pauvreté donc nekkuñu ay nit sax yu tal xeexu principe ñu ngi ci beneen level léegi nag frustration aidant contexte situation on profite waaw léegi lii waral loolu yëpp du mu ko bàyyi oui solution. te li mu wax moo si nekk yàlla dogal na kii nekk moo mooy nekk numéro un au Sénégal mu ngi tudd président Macky yàlla dogal na tey ci mbir yi ci li xew moo amee caabi ji day tëj wala mu ubbi discours suba bi incha allahu rabbi. Mm-hmm. moo mun a yeewee askan wi daal. da li tax sànq ma ne ah. déglu naa déglu naa déglu naa si dialogue bi j'ai vu mais ni ma gisee entre contenant ak contenu fi mbir mi dem dalul sama xel. d'accord ñàkk dal xel boobu moo ma dal ci discours waaye yàlla nañu yàlla bettee xéwal li ñuy wax surprise agréable. ba président Macky Sall njuy ñu ba ñëpp ne ah bett nanu parce que nee na. quand il a dit nous et il a parlé du génie sénégalais sànq wax na ko waxaat ko mais quand il a il a dit quand il a dit nous nous nous nous en tout cas liggéey bi ñu liggéey dinañu permettre nous nous maintiendrons au pouvoir j'ai dit heureusement qu'il ait dit le nous ça sous-entend beaucoup de choses heureusement mais une chose est certaine le peuple sénégalais ne sera pas d'accord pour une quelconque euh, candidature dans ce sens